Euh, ci récusation bi mu defoon euh, mu jëm euh, ci juge bi di Sabassi Faye El Hadj Malick Thiandoum waaw jërëjëf soxna Fati ci li nga xam ni moo di grève de la faim bi Ousmane Sonko commencé ni ki démb dañuy fàttali rek ni li tax moom mu def grève de la fin boobu dafa am ñaari mbir benn bi ci jëkk moo di ni dafa jàpp ni moom téye biñ ko téyee ak euh, bunduxataal biñ koy bunduxataal teguwul ci yoon et euh, ni nga xam ne noonu la yoon di doxe ci ay mbiram yi tamit àndu ci beneen bi ci des mu am ay jigéen yu nga xam ni Pastef lañu bokk tey jii mooy fukki fan yu ñu entamé grève de la faim euh, ba démb ci juróom-ñeenti fan yi pratiquement nit ñi bàyyiwuñu xel ci ñoom seen grève de la fin boobu mu mel ni dañu xawoon a wéet ci li ñu doon ñaxtu jigéen ñooñu ma fàttali ni aji ndaw la Marie Ndey faatu Fall alias Falla Fleur ak Antalay euh, Fall mm. nafisatu Gueye ak Yacine Diagne. ñoom li nga xam ni moom moo tax ñoom ñu entamé grève de la faim. nee nañu fi nga xam ne fa la ñu nekk. ca kaso euh, ca kaso ba. Euh, dañu bëgg ñu koy toppatoo. di ko désinfecté. ñoom xam nañ ni mënuñoo nekk ci condition yu nga xam ne day nuroog ya ñu nekk seen biir kër ak lu ñu mel mais ay la yéwén. Euh, population carcérale bi ëpp na mhm. te tamit condition yi mhm. ci ay jigéen mhm. metti na donc je pense que euh, bu fekkee ni tey ñoom dañu def juróom-ñeenti fan grève de la faim te amuñu pratiquement benn yëngu-yëngu bu ñu gis euh, ci wàllu yoon wala boog ñu yërëm leen ak lu ni mel bu ci Ousmane Sonko duggee dafay gën a yokk coow li kon tey ñu bari dañuy bàyyi xel ci condition yooyu nga xam ni femmes yi ñu ngi koy def parce que Ousmane Sonko euh, tey solidarité bi mu wone dafay wane ni ñooñam yi ñu téye ci biir kaso bi moom fàttewu leen mhm. abandonné leen et que la résistance continue mhm. même si il est dans les liens de la détention mhm. donc loolu dafa nekk démarche bu nga xam ne c'est tout à fait normal que euh, en tant que leader Euh, Ousmane Sonko ay ñu jàpp jàppale ndax jëmmam mu wallu leen. ci hmm. yenn conditions yi rawatina ñu nekk ay jigéen. Hmm. donc moi je trouve que jigéen ñooñu aussi war nañu xoolaat seen nekkin. effectivement parce que aussi hmm. ce sont nos euh, te yi tamit xëy na euh, njuumte wala boog gëm-gëm seen gëm-gëmu politique. moo leen yóbbu ba ñu teg leen loxo. mais du lu ñaaw lu nga xamante nii def nañu ko. donc ñooñu xëy na yërmande war na daw ci ñoom. war nañ leen gestu xool seen ay conditions de détention bu fekkee ni bàyyi leen ni tamit bàyyi bu négandiku pour ëllëg ñu juger leen jaadu noonu ñu def ko beneen bi nga xam ne moom moo ci des moo di ni mbirum agent judiciaire euh, de de de l'État boobu aussi euh, ñu fàttali ni li nga xam ne moom moo taxoon ñu ni dañ koy récuser moo di ni euh, ñii di layal nguur gi dañu jàpp ni moom saba si fay dafa am ay lien de parenté ak ku ñuy wax El Hadj Faye je crois seizième adjoint au maire de Ousmane de Ousmane Sonko mm. à à Ziguinchor mm. donc ci prétexte boobu lañu ni moom bu fekkee ni dafa am ay lien de parenté ak ki nga xam ne dafa ànd ak Ousmane Sonko mm. te ñuy àtte mbiru Ousmane ko mhm. kon mën na am du toogee toogaayu euh, njaaxaanaay quoi. Mhm. da du du am impartialité. Euh, loolu moo tax ñu ñu ko doon récuser boo fàttali ko maître euh, abu Diali bi nga xam ni ci ñuy défendre état bi la bokk. Mhm. génnoon na wax ni moom li ko jaaxal sax mooy gaawaay bi nga xam ni juge bi gaaw na ko pour joxe. Euh, verdict ndax nee na ñoom 9h ba 22h la ñu nekk di plaider mais en 5 minutes le juge à donné son verdict maintenant. en cinq minutes. Mm-hmm. en trente cinq minutes en cent cinq minutes c'est pas ce qui est important. Mm-hmm. mooy ndax moom li nga xam ni décision bi mu rendre. tegu na ci yoon wala teguwul ci yoon ndax motiver na ko wala motiver wu ko est di le droit c'est ça qui est important mhm. et je pense que euh, ci mbirum Ousmane Sonko boobu nga xam ne dañ ko radier ci list électorale yi bien avant euh, que ñu ci statuer ñu bari jàppoon nañu ni mhm. dindi gi ñu ko ci dindi teguwul ci yoon teguwul teguwul ci yoon mhm. parce que am na dans le passé wax nañ ko fi waxati ko lu nga xam ne amoon na fi muy cas Karim ak cas Khalifa Sall dañ leen a bàyyi ñu dem wuti parrainage. Mhm. ba ñu demee ut seen i parrainage déposer seen dossier. Mhm. ba egg cour suprême. tënk leen cour suprême ni. ay la yow yéen mënu bokk ndax lii ak lii. ak lii c'est au de décider c'est au conseil constitutionnel de décider. la la décision rendue par le juge Sabassi Faye. Mm. dafa nekk lu nga xamante ni nii c'est motivé. Mm-hmm. et ñu bëri ànd nañu ci loolu. Mm-hmm. beneen bi nga xam ne fa laay mm-hmm. euh, moo di ni euh, même moom. le juge Sabassy Faye l'union des magistrats du Sénégal mhm. euh, Chimère Diouf jiite ko mhm. génnoon na pour euh, ñaawlu mm. loolu nga xam ne agent judiciaire de l'état bi def na ko mm. muy récusation parce que c'est inélégant à la limite mm-hmm. et puis mu nekk ku nga xamante ni nii ñëpp ràññee nañu ko ci liggéeyam ci intégrité am ak lu ni mel je pense que tey la ñu waroon a àtte affaire bi mm. au tribunal Euh, des grandes instances de Ziguinchor. Mhm. mais euh, comme l'agent judiciaire de l'État s'est désisté. Mhm. on verra la suite qu'il y mais en tout état de cause. Mhm. muy Sonko ci euh, soutien bi mu indi ci jigéen ñi. lu jaadu la li nga xamante ni mooy agence judiciaire de l'État bi def na ko aussi. c'est une grandeur hein, que de reculer. quand on sait que on est dans l'erreur. alors peut-être reprendre bés le jour Mortala l'État se désiste et Sonko résiste. waaw ça résume tout ma ça résume tout boo seetee euh, xam nga état bi dafa désister waaye boo seetee tey dañu indiwaat beneen mbir. Mhm. tegaat ko ci loosu Sonko. maanaam dañuy fii day jeex. ñu indi leneen. muy ci affaire mbay ñam boo seetee euh, tey euh, suqaliwaat nañ ko réveillé waat nañu dossier boobu. Mm-hmm. ba nee nañu sax atte bi boo moytul le vingt six octobre. Mm-hmm. Euh, je crois Cheikh moom la ñuy. Mm-hmm. def disons atte bi mais dañuy ñëwaat rek ci démb sorti Sonko bi nga xam ni quand même. gëjoon nañ ko dégg démb nag mu àddu daal di rappeler ñoñam yi ni leen. droit constitutionnel bi ñu am pour manifester. Mm. ba mu ci ba mu paree ci loolu dani day jàppale sëram yi comme ni ko Malick waxee mais sër yooyu euh, ñi ngi camp te dañuy dund ay conditions yu jafe. Mm. pour man ci jigéen sax quand même euh, góor ñi moom mën nañu mais jigéen bu ñu teg mm. dafa am euh, minimum. boo xam ni da koo euh, da nga koy yelloo ak moom. te boo seetee souvent sax euh, administration pénitentiaire bi li mu wax ni ñoom. Euh, dañ leen di ignorer pour man loolu xaw na euh, scandale parce que ku yor euh, di kaas benn mbir da nga ko war a déglu ba pare xool lu muy ñaxtu nga toog waxtaan ak moom mais boo ko ignorer pour man affaire bi mën na jéggi dayoo tey mën na ëpp loxo. Mhm. te boo seetee ni ñu téyee également nga jël ci rek kenn muy ndey. Ndeye Fatou Fall Fleur mhm. nga xam ni mhm. dafa bind ci Facebook. baat bi liñ ko ci gën a mooy li mu utiliser gatsa gatsa pour man euh, Facebook euh, ñi fi bind ji euh, gég di indi ay tuuma walla leneen mm-hmm. ay baat yu jéggi dayoo di ko teg ci voilà kenn mm-hmm. je pense que euh, bëri na bu ñu doon seet ñiy bind Facebook euh, saa su ne ni dañoo déborder ci baat yi nu doon utiliser kon je pense Sénégal ñi ni tëj dina bëri mm-hmm. mais ñu jël cette femme là daal di koy jàpp euh, procureur requérir ci àtte bi ñu ko jotoon déglu fan yi mm-hmm. ni trois ans lañ ko war a tëj ci pour ay baat gat gat sa gat sa mm. pour man loolu c'est exagéré mais loolu aussi mm. day ñëwaat ci les cent cinquante prisonniers yi nekk Ziguinchor bu ñu fàtte ni mm. ñoom aussi dañoo nekk grève de la faim ñoom dañoo jàpp ni Euh, dañ leen a war a d'abord euh, ñoom dañuy dénoncer détention arbitraire yu ñu nekkee mhm. préventive yu ñu nekkee mhm. ak coût unité de téléphone bi parce que bu ñu waree woote unité de téléphone bi cinquante francs lañ koy def mhm. cinquante francs waaw te et puis nee nañu li ñuy lekk également ca prison Ziguinchor baaxul mais depuis nag ñoom ña nga ca te euh, li ci gën a doy waar mooy dafa am ay xale ay mineurs yoo xam ni dañ ci nekk muy cinq mineurs yoo xam ni. dañ leen a tëjandoo ak cent cinquante yooyu te nee nañu sax cent cinquante yooyu trente deux muy fanweer ak ñaar dooleeku nañu yokk ci grève de la faim bi kon lim gi gën na yokk. mais xale yooyu boo seetee muy Joseph Vieux Mendy am dix sept ans euh, euh, fukki at ak juróom-ñaar. ak kii di Samshedine Mbaye am juróom euh, fukki at ak juróom-benn seize ans. Amadou Cissé am quinze ans. mooy euh, fukki at ak juróom euh, Rilu euh, Mané am Aliou maane am 17 ans. 17 ans mooy fukki at ak juróom-ñaar. Alain Bassem am 16 ans. donc mu ay xale yu ndaw yoo xam ni dañ leen a tëj ci ay conditions yoo xam ni. Eh, mësuñu tàmm kaso mësuñu ko. kii pour manifester. pour man war nañu seetaat un peu. pour voir un peu nu ñuy indee euh, solution ci xale yooyu. que ñu leen di tëj ñu fay jëlee. peut-être sax yeneen yoo xam ni. nekkuloon ci ñoom waaw ne nekkuloon ci ñoom. je pense prison lu doy waar la. Mm-hmm. bala ñoo tëj kenn war nañ koy gën di seet. moo gën ñuy entassé nit ñi ci ay prison te day jéggi dayoo. merci liy jëmaat nag ci mm-hmm. jeexal foofu rek. Fatou xam nga ci euh, Sonko bi euh, dafoon na fi grève de la faim. ba sax boo seetee Serigne Moustapha si mm-hmm. moom moo ko wax ci gàmm gi daal ni. Euh, Sonko léeg-léeg da doon euh, simuler ay crise pour bañ waa yeewi askan wi euh, pour bañ yeewi askan wi gis ko parce que wax na ko ci champ de course te àddoo àddoo gun ci ba léegi je pense que war nañu leeral également loolu parce que nee nañu nee na moom Euh, médecin yi bu waa askan yu ñëwoon dan naan leen Sonko nekk na dans le coma donc euh, ñooñu wàññeeku duñ ko gis je pense wax boobu ba léegi euh, mi ngi lëmbe xel yi. Mm. te xamuñu woon lu mu ci jublu. waaw mu mel ni daal mm. mbir yi dooy na waar. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf il est 7 heures ba tegal fukki simili ak jur ak ñett ñu ñëw léegi léegi ci un jour au Sénégal un jour dans le monde. sànq maa ngi leen